am taxawaay bu wér ngir jële ko fi lii war a tax askan wi yëpp boole seen doole ak seen gis-gis ngir sàmm àq ak yelleefu jigéen fépp fu mu mën a ne ci Sénégal xibaar bi ambassade France lëkkaloo ci ak URAT ci ndimbalu projet bu PISCA moo leen koy may. mbokki auditeur auditrice rajo Afia ñu leen dellu di leen ziar. di leen nuyu bu baax a baax di jaajëfal safoo beeg faale bi seen rajo Afia ñu teewaat fii jëmaa si beneen émission boo xamante ni uh, mi ngi jëm ba tey ci wàllum genre bokk na ci bu tey bi ñuy waxtaanee lépp loo xamante ni dafa aju ci jigéen ak visite yi nga xamante ni war nañ ko amal ci bu nekkee jigéenu bu wérul ba ni ñu amee doom ba tey émission yi ñu koy wéyandil suñu lëkkaloo ak ambassade bu France ci seen lëkkaloo ba tey ak euh, kuréel gi nga xamante ni moo ëmb rajo communautaire yi nekk fii ci Sénégal ci projet bi ñu tuddee PISCA mu aju nag ci euh, jëmmal lépp loo xamante ni jigéen mi ngi ci yëngu tey wax naa leen ko li ñuy waxtaanee moo di visite pré e postu euh, nataal ak ni nga xamante ni moom la impacté ci jigéen ñi ci jamono joo xamante ni ñuy dund li nga xamante ni moo di coronavirus di Covid 19 ci loolu. tey ma ci ànd ak ki nga xamante ni moo di soxna ma jigéen Ndiaye di maîtresse sage-femme nekk ca centre Elisabeth Diouf bu golf damay tàmbali di ko nuyu soxna Eli soxna ma jigéen maa ngi lay nuyu di rafetlu sa euh, teewaay sunu plateau. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu auditeur ak auditrice su Afia FM. Mhm. maa ngi lay nuyu bu baax. di mhm. rafetlu invitation bi tey. Mhm. waaw Euh, soxna ma jigéen bu ñuy euh, tàmbali tey buñ doon euh, jéem a faram-fàccee maanaam visite prénatale wala visite postnatale buñ ko doon faram-fàccee ci olof lan lay doon. waa pre nataal ak nataal pre nataal mooy visite bi nga xam ne jigéen bi su wan nee lor boobu muy dugg ci weeram. Mm-hmm. visite boobu lañuy def. visite boobu dina nekk un ba quatre dina am tam ay suivi. Euh, nataal bi mooy bi nga xam ne bu femme bi wasinee mm-hmm. ba pare dañ koy seet mook doomam mm-hmm. boobu tam trois lay doom mm-hmm. léegi visite nataal bi dafa am euh, ay étap am na postnatal une bi mooy première consultation bi boobu mooy premier contact bi boobu su amee femme bi bu ñëwee dañ koy seet dañ koy consulter dinañ def interrogatoire bi def état civil laaj ko nu mu tudd nu mu sant fu mu dëkk laaj ko tamit ndax amul ay antécédent tamit. Hmm. Euh, su fekkee dafa nekk di naan ay garab wala muy faji beneen feebar ci suuf dañ koy laaj. Hmm. suñ ko laajee loolu yëpp pour ñu mën a xam antécédent yi mën na nekk diabète mën na nekk drépano cardiopathie yeneen feebar yu sew yu nekk si suuf. Hmm. bu ñu paree antécédent yooyu médicaux chirurgicaux ndax mus nañ ko opérer gynéco. kañ la njëkk a gis règle. réglam ñaata fan lay def yooyu yëpp ci antécédent yi la bokk. Hmm. obstétrico ndax bii mooy ëmbam bu njëkk ndax am na yeneen ëmb yeneen ëmb ëmb itam nan la toppalante ndax ëmb bi dafa nef jegeyoontoo la wala du jegeyoontoo hmm. ndax tamit ñu nañ ko laaj tam ndax euh, bii mooy ëmbam bu njëkk ndax amul ay avortement yoo xam ne da ko doon tegalantoo tamit hmm. yooyu yëpp dinañ ko laaj suñ paree dinañ ko seet hmm. peese ko jëla ko tension xool xorom beeg suukar bi nekk ci saw bi hmm. bu ñu paree tam ñu peese bi ak jël taay bi mooy tax ñu xool ndax femme bi obèseul wala obèse na yooyu yëpp day nekk facteur de risque ci grossesse bi dinañ natt tam loxo bi xool ndax femme bi xiibanul yooyu itam day nekk facteur de risque tam ci euh, grossesse bi léegi étape boobu bu ñu jàllee ci consultation beeg yëpp am na tam yeneen yu yuñ ko war a defal. Mm-hmm. dañ ko war a ñàkk yooyu am na ay prévention yoo xam dañ ko war a def mooy prévention palu mooy dañ koy jox sànke mu ci tëdd. ci ëmb bi mm-hmm. yëpp. ba ni mu wësinee da si war a tëdd sànke bi moo koy aar. Mm-hmm. pour mu bañ a jàpp sibiru. am na tam prévention tétanos dañ koy ñàkk ñàkk tétanos bi su amee un mois ñu ñàkkaat ko. six mois après dina waat boobu dina fekk mu akku si su ko neexee mu yeggali ay ñàkkam. am na tamit. Euh, dépistage HIV ak syphilis boobu dañuy waxtaan ak moom ci tàng-tàng bi mhm. su dee d'accord nag counseling la maanaam dañuy waxtaan ak moom ñu expliquer ko doomu jàngoro sida ban impact la mën a am ci moom ak doomam surtout si doomam du moment garab yi dañ koy maye mhm. su doomam juddoo tam garab yi dañ koy maye mën nañ ko toppatoo aar ko ba doomam bu juddoo amaana bu ñu defee analyse yi la plupart du temps xale bi du am doomu jàngoro bi mhm. su d'accordee dañ koy defal ci tàng-tàng bi dañ koy capp ci baaraam bi rek jël deret bi defal ko buñ ko defalee loolu ba pare am na tam beneen bilan boo xam ne dafa war a bokk tam ci euh, visite bi. Mm-hmm. mooy dinañ xool ndax femme bi amul jabet parce que jabet mën na feeñ ci ëmb. Mm-hmm. mën na feeñ ci ëmb bu dee femme bi amul jabet ñu xool suukar bi xool ndax amul drépano bu dee moom amul drépano baax na su dee dafa am drépano tam dinañ ko laaj ndax jëkkëram amul drépano parce que am na benn tibb drépano boo xam ne moom su amee jëkkëram am boobu drépano bi dafay xaw a doy waar. Mm-hmm. dinañ ko dinañ xool syphilis bi dinañ xool tamit sang ban groupe la soit bu dee rhésus négatif la wala rhésus positif parce que bu dee rhésus négatif amaana su demee ba accoucher ba pare am na benn piqûre boo xam ne daf ko war a jël te piqûre boobu dafa xaw a cher dafa xaw cher donc euh, su fekkente ne préparé ko wala bilan bi yéex na génn. Hmm. ñu gis ne moom dafa war a jël piqûre boobu parce que moo koy aar ci yeneen grossesse antérieures yi. Hmm. su ko préparé wul bu dee moyens yi amul boobaa day indi confusion moo tax dañ ko koy teel a wax suñ ko ko waxee. après su fekkente ne mun na teg ay stratégie yoo xam ne dina mën a dajale mu sóoraale loolu dina baax. Mm-hmm. léegi tamit dinañ ko laaj tamit ay plaintam lan la lan moo koy metti tey ci tàng tàng bi dinañ prévention bi tam comme ni ma doon wax sànq tamit am naa ne na prévention de l'anémie. Mm-hmm. parce que début grossesse acide folique lañ lay jox acide folique bi mooy tax xale bi du am benn malformation. ku ne bëgg nga soo ëmbee li ngay imbi mu nekk ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. kenn bëggul imbi doom boo xam ne tamit du mel ni nga ko bëggee. donc dañ koy euh, jox euh, acide da koy jël su ñu amee ay plainte tam ñu traité plainte yi su tolloo fu nga xam ne dafa war a jël ñetti doom yi koy aati si bureau ba tey si prévention palu bi ñetti doom yi dañ ko koy jox chaque mois de ñëw ñu jox ko ñetti doom yi ñetti doom yi nag da koy naan ci kanamu sage-femme mm-hmm. mu koy naan mu koy gis loolooy wóor na sage-femme bi ne moom naan na ñetti doom yi mm-hmm. bu paree ñu bindal ko ordonnance bu dem ñu wax ko tam siñ de danger yi siñ de danger yi mooy bu dee da nga gis deret da ngay ñëw hôpital comme commencement ëmb bi la visite bu njëkk bi la bu gisee deret day ñëw hôpital bu dee biiram day metti wala boppam day metti wala yaramam dafa tàng lu mu yëg ci yaramam dafa war a ñëw hôpital mhm. mu bañ a xaar rendez-vous bi léegi nag bu ñu paree ci consultation boobu noonu mooy première étape bi mhm. ma jox nañ ko bulletin pour mu def analyse am ak yëpp bu amee plainte mu ñëw n'empêche ci consultation bu njëkk boobu day def plan d'accouchement am maanaam day préparer accouchement bi certes kooko wax sa day reetaan naan ëmb bi tolloogul fenn mhm. may defar sama saak loolu nu mën a nekkee mais effectivement dafa war a defar saagam ci nu mu gën a teelee parce que tey kenn mën na ñëw visitoo ci yow waxoo ko plan d'accouchement boobu mu bàyyi ci yow demaat ci benn am na malade yoo xam dañuy wër rek demaat ci keneen wala mu dem ba dugg ci weeram wala jege yaayam wala jege goroom mm-hmm. wala mu dem accoucher feneen mm-hmm. fekk waxuñu ko woon ne dafa war a def plan d'accouchement mm-hmm. boobu dagale ay sëram euh, dugal euh, serviette hygiénique am ci saagam dugal ay silibam dugal ay yéreem dugal bonnet ak kawas pour bébé bi dugal yëre bébé coton yooyu yëpp su ko dugalee ci biir saagam gànnaayoo xaalis pour en cas ñi nga xam ne comme par exemple dañoo dëkk fu sori war a jël moyen de transport boo xam ne da leen di déplacé loo su fekkente ne gànnaayuñu lu ñu paase day indi ay jafe-jafe. Mm-hmm. donc boobu mooy consultation prénatale bu bu njëkk bi. Mm-hmm. am na consultation tam n'empêche dinañ ko jox rendez mu war a ñëw rendez naan naan ñetti doomam yi. Mm-hmm. yeggali ñàkkam bi. ak rendez-vous visitam am na tam beneen euh, consultation deuxième consultation bi deuxième consultation bi femme bu ñëwee dañ koy seet tamit examiner ko xool boobu tam euh, buñ boobu buy ñëw mu ngi am ay 4 ak 6 mois boobu déjà biir bi commencé na yëngatu dañ koy seet peese ko jëlal ko tension mm-hmm. à chaque fois dañ lay jëlal tension peese la parce que poids bi mooy tax poids de départ bi nga xam parce que jigéen bu ëmb su ëmbee rek poids normal war na si teg 12 kilos normalement léegi mm. donc su fekkente ne gis nañ kii bële passé bañ ko peesee ak tey poids bi am na différence wàcc na mën na am cause soit femme bi dafa dul lekk wala mm. wocc yi moo ko sonal ba lekkul lekkul wala am na leneen lu ne ci biir am na ñoo xam dañ naan benn repas rek laa mën a lekk su ma lekkee sama biir bi day diis wala du mën a lekk mm. dañ koy peese dañuy xool xorom beeg suukar bi yu nekk ci saw bi dinañ xool tamit tension parce que tension tam mën na feeñ ci ëmb mën na bañ a feeñ ci ëmb bu xoolee loolu yépp tamit après itam dañ koy consulter ñu ko consulter tamit ñu bindal ko ay garab traitement feer fer bi moom waru ko bàyyi. Mhm. feer bi ci grossesse bi ba bu accoucher ba 6 mois dafa war a naan feeram loolu tam dañ ko gi mhm. après dañuy insister waat ci plan d'accouchement bi bu waree naan si ñetti doom itam dañ ciy insister waat day ñëw chaque mois mu naan ñetti doomam dina am tam beneen écho boo xam ne dañ ko ko war a bindal pour mu def ko boobu mooy écho biométrie bi. écho boobu mooy tax ñu xool ndax amul mal formation parce que am na malformation yoo xam deuxième trimestre bi lay feeñ bu amee mal formation wala dara loo xam ne dañu war a mën a jël en charge bu boobaa dañ koy dañ ci jublu bu defee consultation numéro euh, CPN2 am na CPN3 n'empêche CPN2 bi tam day am plan d'accouchement ba tey dañ ko koy fàttali kon plan d'accouchement depuis le début lay am depuis le début ba ba mu dugg terme chaque consultation dafa dafay am plan d'accouchement déjà d'ailleurs sa carnet yu bees yi ñoom bu ñu ubbee seen carnet di liir rek mm-hmm. déjà li sage-femme bi waroon toog di yi yépp mu ngi ci carnet bi am na si ñoo xam ne dañuy ubbi carnet bi lire ko liir ko liir ko ne ma lii lii laa gis ci carnet bi ndax lii normal la wala ndax normal parce que carnet bi de am na yenn interdit yoo xam ne dañ la koy tere comme kafe mm-hmm. café bu bëri ataaya bu bëri jigéen buy tux parce que am na ñuy ëmb di tux mm-hmm. euh, di yëkkati lu diis di def ay voyage ay yooyu yëpp dañ la koy tere donc loolu am na ci carnet bi donc ba pare n'empêche war na tamit lekk cinq repas jigéen bu ëmb dafa war a lekk cinq repas mhm. su ndekkee ba pare war na lekk mhm. su añee ba pare war na lekkaat mhm. su reeree ba pare su ko neexee mu lekkaat war na lekk fruit war na lekk légume léegi fi Sénégal boo nee nit na lekk fruit wala na lekk légume rek dañ naan tubaab la te fekk tel n'est pas le cas te femme enceinte dafa am ay interdit yu bëri yoo xam ne day dem ba li baax si yaramam ferñeent yi ci nekk yëpp du ko mën a lekk belle famille bi wala ñenn ci kër gi ñu ngi naan ko li ngay lekk baaxul waroon naan ndox bu sedd waroo lekk banaan waroo lekk li alors que yooyu ay fruits la yoo xam ne dafa baax ci alimentation mm. léegi bu ñu paree ci CPN 2 bi am na CPN 3 boobu 7 ba 8 mois la CPN boobu mm-hmm. boobu bu ñu ko defee consultation boobu bu ñu ñëwee tamit dañ koy peese jëla ko tension xool saw bi ndax amul xorom ak suukar xool tamit euh, consulter ko de la tête au pieds mm-hmm. dañuy déglu xale bi tam même CPN2 bi dañuy déglu xale bi ndax mu ngi yëngatu bu baax mm-hmm. CPN2 bi tam dañ koy wax signe de danger yi mm-hmm. CPN3 tam dañ lay wax signe de danger dañuy examiner xale bi yëpp ñu wax ko signe de danger yi boobu xam nga bu njëkk ba newoon nag su gisee deret wala yaramam tàng wala mais bii dañ naan la soo biir bu yëngatuwul dangaa war a ñëw hôpital soo gisee deret dangaa war a ñëw hôpital soo gisee ndox danga même bu dee ndox bi da koy jaawale ndox la wala saw yow boo ñëwee sage-femme bu la seetee am na lu mu war a seet am na ñaari tur yoo xam ne bu ko seetee ci examen bi dina xam ndax lii ndox nga gis wala ndoxoo gis mën na la demander écho écho bu ñu nee mën na nekk mën na confirmer moom dutam d'accord donc bu gisee ndox su gisee deret biir bi day metti biir bi yëngatul lépp dafa war a ñëw hôpital yooyu yëpp warul xaar mm-hmm. même bu dee samedi ak dimanche 24 heures sur 24 hôpital yi ñu ngi fonctionner foo dem garde sa carnet nga ne damaa gis ndox dañ lay seet en urgence wala damaa gis deret wala sama biir yëngatuwul dañ lay seet en urgence donc su fekkente ne bilan bi ñëw na tam CPN 3 bi bilan bi ñëw na ñu gis ne ci bilan bi dafa amoon anémie déjà bindaloon nañ ko ay fer yu muy naan su respecté prise bi normalement mu koy naan ñu tere ko nag lépp lu nga xam ne day yàq feer bi parce que nga naan nga ndékkee sa kaasu kafe Touba wala sa kaasu nes Nescafé ba pare jël sa feer naan bu duggee sa yaram amul benn njëriñ. te femme bi dafa war di naan feer constamment. waaw dafa war di naan feer dafa war di naan feer ci grossesse bi ba ci accouchement bi ba 6 mois après accouchement dafa war di naan feer parce que anémie mën na feeñ ci grossesse te am na yenn anémie yoo xam ne su amee rek day indi gàllankoor si ëmb bi. ay anémie sévère lay doon. kon ba tey ñii ci prénatal. Mhm. Mhm. ba tey ñu ngi si prénatal waa ñu ngi ci troisième consultation prénatal bi. Mhm. boobu tam dañuy def euh, plan d' action. plan d'accouchement bi tam dañ koy def boobu tam mu préparer saagam préparer yëpp teg quatrième consultation prénatale bi boobu jàpp nañ ne boobu sax femme bi dugg na ci weeram mm-hmm. boobu bu duggee ci weeram boobu tam dañ koy seet peese ko jëlee ko tension mm-hmm. xool ndax amul xorom wala dara mm-hmm. buñ ko seetee ba pare dinañ ko demande waat beneen échographie foofu tam dinañ ko bindal ay garab dinañ ko bindal suppositoire boo xam ne moom lay def bu koy jàppale pour biir bi payen saay mu metti payen mu bàyyi am na yoo xam ne c'est très normal mhm. mais su biir bi mettee day ñëw hôpital comme signe de danger yi ñuy wax fee à chaque fois day ñëwaat su biir bi mettee day ñëw su gisee ndox day ñëw su gisee deret day ñëw biir bi yëngatuwul tam day ñëw yooyu yëpp signe de danger la donc échographie bi dinañ ko demoon demander échographie bi échographie troisième trimestre boobu mooy tax ñu xool euh, xale bi poids am bi baax na HU euh, excessive maanaam hauteur utérine bi dafa jéggi doyo natt bi mm-hmm. am na pois boo xam ne euh, bu tolloo foofu dañ macrosome lañ koy wax mooy xale yi nga xam dañuy juddu taay mm-hmm. léegi bu ñu ko demandé échographie bi écho bi dina wane poids bébé bi dina wane tam and bi ndax jiitu na wala jiituwul parce que and bu jiitu and warul mën a njëkk jiitu xale xale day juddu ba pare ànd bi door a génn mais su fekkee ne ànd bi dafa jiitu loolu mën na indi nàcc nàcc te loolu urgence la ñu xool eco bi day xool ndax ànd bi jiitu na wala jiituwul ñu xool ndax ndox mi bëriwul parce que bu dee ndox mi dafa bëri tamit euh, li ñuy wax idram hydramnios su dee dafa bëri su rompre rek euh, pla euh, kii bi cordon bi mën na mën na rëcc génn te cordon bu rëccee génn loolu tam urgence la femme bi mun na ci bañ a xam dara. Mm-hmm. bu ñu xoolee tam niveau présentation ndax xale bi bopp lay ñëwee wala xale bi taat lay ñëwee wala xale bi dafa tëddee wet xale bu tëddee wet xam nga du mën a génn. Mm-hmm. bu dee xale boo xam ne bopp lañ ñëwee moom amul problème bu dee xale bi tam taat la ñëwee tamit loolu mooy présentation siège mhm. siège ñu ngi naan léegi dafa war a accoucher hôpital bu mag mais bu dee primi la koo xam ne mosul am doom mu nekk présentation siège kooku dafa war a dem hôpital bu mag ko bi xool bu fekkente ne da koy césarienne indication lay doon normalement sax mhm. léegi dinañ xool tamit euh, ndaxam benn doom la wala ñaari doom parce que loolu écho bu njëkk bi buy confirmer grossesse bi dina wax ne lii benn doom la wala ñaari doom hmm. bu fekkente ne ñaari doom la ñaari doom wala ñetti doom yàlla rek moo xam bu dee ñaari doom la dañuy xool ban seex moo jiitu seex bi jiitu ndax bopp la ñëwee wala seex bi jiitu ndax taat la ñëwee wala ñaari seex yëpp benn bee ñëwee bopp benn bi tëddee wet yooyu yëpp écho bi moo koy moo koy wane léegi euh, bu ñu paree ci ci kii bi bi ñu paree ci consultation boobu baare amatul léegi kenn du baareeti. Mm. bu njëkk ba même léegi da ngay dégg ay femmes yu wax naan dañ maa baare mais benn sage-femme baareetul léegi. bu ñu la seetee ba ñu defal la sa visite bi nga xam ne dugg nga sa weer chaque 15 jours soo accouché wu da ngay ñëw hôpital chaque 15 jours boo accouché wu da ngay ñëw hôpital am na fooy toll foo xam ne ci consultation bi. sage-femme bi su xoolee gis na yaa ngi def dépassement de terme maanaam yaa ngi génn sa weer mhm. boobaa da lay bindal këyit nga dem hôpital bu mag soit ñu déclenché la mhm. tam dañ koy boole léegi ci mode d'accouchement ñu bëri soo nee césarienne dañuy tiit dañuy ragal ba tey yoo xam ne dañ leen di seet médecin gis ne lii indi sage bi mooy njëkk a gis ne lii indication césarienne la def fiche mu dem hôpital mu ne kenn du ko césarienne wala jëkkër ji ne kenn du ko césarienne wala kii bi bu boobaa gynéco bi moom tam day bind ne dafa bañ bu boobaa dey wër wëraan hôpital bi yëpp fu ne mu wër wëraan fa fu ne mu wër wëraan alors que césarienne boobu peut-être mooy li gën ci moom gën ci doomam. d'accord kon mu mel ni euh, ma jigéen euh, jigéen ni mu ëmbee ba ni muy wasinee lépp dafay nekk ci ci ci risque. Mm-hmm. kon tout le temps dafa war a dem di fréquenter li nga xamante ni moo di hôpitaux yi mm-hmm. ngir ñu mën a xool état de santé am mm-hmm. euh, loolu sax mooy euh, temu temu émission bi ci euh, jamono joo xamante ni contexte bi xam ngeen ko ni li ko marqué moo di covid 19 est-ce que jigéen ñi ñi ngi continuer di fréquenter hôpitaux yi malgré la maladie wala dañoo toog seen kër am na benn doxante boo xamante ni def nañ ko dem seeti jigéen ñi ak seen i doom nan la ñuy taxawee ci jamono ji nga xamante ni coronavirus mi ngi ci réew mi ñu dem déglu seeni i kàddu te ñëwaat si waxtaan bi. dematuma ndax bi ma demee rendez-vous bi passé dañoo ne woon bu ñu andiwaat xale yi tant yi dañ koy tere te foofu bëri ay nit. mais loolu est-ce que wóor na pour xale a a ñu pees mais loolu yëpp amatul deux mois yëpp demuñu. léegi xale bi tàngaay bi yaram bi muy tàng nii rek. mais dañoo ne bu ñu ñëwaat ndax regroupement yi dañ koy tere hôpital yi. te joxuñu leen dara loo xamante ne mën naa ñu dara loolu lay la ñu wax. même ba nga nekkee en état fekk feebar bi commencé wu dugg tamit wala. ma nekkee woon en doon naa dem a mois visite. Mm-hmm. feebar bi rek moo changé programme yi. bu daan dem hôpital yi avant ngeen wax toog leen yéen maman yi seen xel dina dal est-ce que. kay ndax dafa doon bëri ay nit te amul defoon distance ñëpp doon dajaloo toog ci benn place wóorul de te boo solu masque duñ la wax dara dañ lay bàyyi rek nga toog noonu amul gel amul dara da nga ñëw rek toog xam naa liñ dina ci baax ndax foofu amul woon benn hygiène dinañ tiit moom ndax feebar beeg yooyu tam mooy tax remédié ak hygiène bi maanaam li ñuy wax ci wàllum ñun soriantoo ak euh, masque yeeg yooyu est waaw loolu moom dinañ ko def bala ñuy dugg si hôpital bi tamit dañu raxasu laal sel ba pare dooga dugg ci hôpital bi mais quand même say rendez-vous yaa ngi koy respecté waaw maa ngi koy kañ nga mujj dem kees bi rek demoon naa waaw. mais bii di ñëw di demaat. waaw bii di ñëw laa war a demaat. mais booy dem sa xel quand même du dal. déedéet dem sama xel du dal ndax feebar bi mooy tax. waaw man dem di ko ñàkk ji parce que dañ ne xale boo ko du ñàkk. da ngay tax mu ñàkk doole. waa te man dama jàpp ne ñàkk bi ak feebar bi ça n'a rien dama ko ñàkk pour santé moo tax. mais est-ce booy dem tamit doo tiit ndax feebar am ngay ànd ak xale di yóbbu ak moom yow tamit si wér-gu-yaram est du ngeen tiit booy dem hôpital. waaw dinaa tiit parce que. feebar dafa am te kenn xamul nit ñi dañuy tasare mais damay protéger wu rek bañ a jaxasoo ak nit ñi moom tamit ma protéger bu baax su may dem hôpital. avant est-ce que sa visite yi yaa ngi ko sama visite yi moom maa ngi ko doon def normal. ak feebar bi. parce que man dam bi ma ëmbee presque boobu bi may accoucher ci la feebar xam nga feebar bi le premier mars léegi man la 16 mars laa am doom li may accoucher moom dund ma feebar bi maa ngi doon def normal. mais quand même moom am benn problème hôpital bi ngeen demee norme d'hygiène yi est-ce que yéen. ñoo ngi topp norme d'hygiène yi. distanciation yi waaw yooyu yëpp ñu ngi koy wax. di leen jox masque ngeen takk. non non jox ñu masque mais man maa am samay masque bu may dem maa takk samay masque mais hôpital soo ñëwee boo leen mënee kii distance yi moo gën parce que feebar dafa am ngeen protéger xale yi. di leen leen jox aussi seen loxo yi. waaw na fa waaw ak gel boo raxasee sa loxo kenn du la jox gel mais tam boo ñëwee ñëwee dépassé raxasoo sa loxo bi jox lay gel. amul benn problème hôpital moom non non amul benn problème te ñoom tam ñoo ñu feebar. ñoo ñu ciy xaar. xeex bedd bi ak kàddu yu ñaaw yi ñuy teg ci ndoddu jigéenu senegaal te teguwul ci benn diine waral kuréelu ndaw yu góor yeek jigéen ñi am taxawaay bu wér ngir jële ko fi lii war a tax askan wi yëpp boole seen doole ak seen gis-gis ngir sàmm àq ak yelleefu jigéen fépp fu mu mën a ne ci senegaal xibaar bi ambassade France lëkkaloo ci ak URAT ci ndimbalu projet bu PISCA moo leen koy may. kon ah, mi ngookam ah, jigéen ah, ni mooy liñ doon wax rek ak suñu vox pop di fàttali nag mbokk yi nii yéen a ngi seen rajo Afia ba tey ñu wéyandi seen émission bi nga xamante ni ñu ngi koy am si lëkkaloo bu URAC am ak ñi nga xamante ni ñoo di ambassade bu France ci benn projet bu projet PISCA maanaam ngir jëm ci wàllum genre maanaam fexe ba jëmmal jigéen fexe it ba ñuy respecté lépp loo xamante ni ak ak yelleef la jigéen moom ko yéen mën ngeen bokk si émission bi ngeen defee 88 628 05 05 88 628 05 05 bu ngeen gisee ni jigéen ñi ci lopito yi am nañ fa ay jafe-jafe ci jamono Covid 19 bi wala it yéen am ngeen ay jafe-jafe ngir mën a dem ci lopito yi ngir mën a xool seen bopp si euh, jamono joo xamante ni di ngeen nekk en état wala ngeen euh, mucc ba noppi yéen a xam waaye daal mën ngeen def 88 628 05 05 donc ma jigéen dégg nga. Ah, jigéen ñi ah, ñenn ñi dañoo war na lool ñi sa des am na doom mais ñu ngi ñuy xamal ni ñoom am nañ ay jafe-jafe ngir mën a ah, am sax jafe-jafe waaye it bu ñuy dem wax dëgg yàlla seen xel du dal ndax jamono ji fi mu toll ak coronavirus yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci poste yeeg si district yi nan ngeen di dundee ak jigéen ñi bu ñëwee ci district yi ak feebar bi nga xamante ni mi ngi am. waaw maam Sey merci. Euh, parce que structure yi ñun fi ñu nekk ñun hôpital lu njëkk mooy malaat mm-hmm. buy dugg ci hôpital bi boo amul déjà da ngay raxasu balaa ngay dugg boo amul masque moom doo sax dugg. Mm-hmm. boo amul masque doo dugg donc nit ñi man je pense que ne euh, fagaru bi dañ ko war a tàmbale ci seen kër soo nee da fàtte sa masque wala dara dañ naan dama nga jënd masque dangay ngay jënd masque après nga ñëw nga door mën a dugg ci structure bi parce man dama jàpp nit bu jugee këram di ñëw hôpital. Mm-hmm. hôpital la warul gën a wóolu. que këram parce que danga naan hôpital man bu may ñëw ku nekk laa fay dajeel. Mm-hmm. donc naa jël sama matuwaay yi ci war yëpp pour ma mën a protéger sama aar sama bopp man aar sama doom bi nga xam ne moom laa boot pour ñëw indi ko mu ñàkku wala ma ko mu consulté wu. Mm-hmm. wala ma aar ki nga xam ne moo nekk sama biir. donc ñun ku amul masque déjà doo dugg ci structure yi te defe naa loolu ci structure yu bëri la mm-hmm. normalement soo amul masque waroo dugg ci structure bi da war a raxsu boo duggee. au début nag ak corona bi début bi moom nit ñi dañ doon xawoon di ragal ñu si bëri dañ doon raté seen rendez-vous yi mais après comprendre nañ ne il faut ñu comme nee nañ nañ dund ak virus bi donc il faut ñu jël suñuy matuwaay yi ci war yépp pour nga xam ne yow li ngay def si sa wér-gu-yaram la ak wér-gu-yaram ki nekk sa biir parce que soo toogee sa kër noonu rek ragal a dem hôpital tamit doo faju sa rendez doo ko respecté donc l'idéal mooy nga takk sa masque boo ñëwee si hôpital bi nga raxasu déjà hôpital bi déjà distance lañ wax donc soo ñëwee bu ñu toogee tuuti sax gis ne fii defoon nañ fi distance am na ko toog ci digg bi sax gardien bi day ñëw ne la jógal nga jóg respecter leen distance. Mhm. donc foog naa ne structure yu bari suñ ko defee noonu dinañ mën a aar maladie yi ñëw foofu. aarale tam ñiy liggéey foofu ci seen biir. mais est-ce que ci début bi comme ni ko waxee noonu ba jigéen ñi commencé woon di ragal dem euh, suivre seen i seen i visite comme il faut est-ce que amul ay jafe-jafe par exemple jigéen ñi am lu ñu yëg ragal a dem wala seen rendez-vous ñëw ñu ragal a dem est-ce que après du am euh, si seen wàllum wér yaram ay jafe-jafe yoo xamante ni euh, dina leen ci dal ba yéen yéen deen yu mujj sonn yéen personnel soignant bi. waaw day am parce que da ngay gis jigéen boo xam ne comme par exemple mu ngi wacc mu ngi wocc ñaari fan mu ngi wocc mënul lekk lu dugg génn xam nga kooku dafa war a ñëw hôpital nu mu gën a gaawee. mais mhm. day ragal du ñëw. Mhm. day dinay toog ba buy ñëw buy ñëw hôpital dañ koy teg ci pousse pousse bi diri ko mu yegsi donc kooku dangay ngay obligé mm-hmm. soo ko hospitaliser déjà hospitalisation bi au début sax dañ daan bañ déedéet bindal ma garab ma dem mais am na fu wàcc bi toll foo xam ne garab bi du la njëriñ dara. Mm-hmm. butéel yi moo lay njëriñal dara. dañ lay mm-hmm. waxanteeg yow su ko defee ñu hospitaliser la nga toog faju nga mën a weer delluwaat sa njaboot. donc man dama ne ku feebar rek bul ragal dem hôpital. parce que bu dee feebar boo xam ne ordonnance bu fukki dërëm moo koy faj nga toog sa kër ragal a dem hôpital. Mhm. ordonnance bu ëpp loolu dina la si fekk. Mhm. te jamono instant bi ñëpp xam nañ ne ak Covid bi jamono neexul. Mhm. poos yëpp fëq. donc yow da mën a dimbali sa bopp nga dimbali waale yow ki nga xam ne mooy jël garab yi en charge wala moo lay jëndal garab yi. donc soo feebaree da ngay daw hôpital nu mu gën a gaawee soo demee hôpital lépp lu ci war dinañ la ko defal. di fàttali ba tey ñu ngi dalal euh, soxna ma jigéen Ndiaye di maîtresse sage-femme nekk te centre Elisabeth Diouf bu nekk ca golf li ñuy waxtaanee mooy euh, Covid 19 maanaam jàngoro coronavirus euh, ban njeexital la am si visitu jigéen ñi ci bi nu la wannee lor waaye it bu nu wasinee ba noppi 88 628 05 05 moom ngeen def mbokk yi ngeen bokk ci belle émission ñi leen koy jagleel di waa ambassade bu France seen lëkkaloo ak euh, Irak di kuréel gi nga xamante ni moo ëmb rajo communautaire yi nekk fii ci Sénégal ñoom nag ñu lëkkaloo ngir xeex ak ak yelleefu jigéen ci lu mënti doon euh, waaw surtout ñu bañ di ab euh, beddi wala sax ñuy néewal doole ñi nga xamante ni moo di jigéen ñi kon ma jigéen. wax nga ko ci bi ñu wal nee lor dañuy am ay jafe-jafe ngir ñëw dem ba sax ba bu nu accouché ñu euh, gis ni euh, si jamonoy Covid est-ce que bariwul jigéen yoo xamante ni dem nañ sax ba mujj accouché seeni kër ndax fii feebar bi toll. non accouchement à domicile nag sincèrement ah man de je pense que accouchement à domicile instant bi moom. wàññeeku na lu bëri. wàññeeku na mais jamonoy Covid est-ce que gisoo jamonoy Covid bi nii nii nii nii non non accouchement à domicile. Mhm. non non. Mhm. parce que nit ñi bu ñu amee lu leen métti au début dañu doon ragal ak couvre-feu bi ragal a génn mais parfois bu ñuy génn sax dañ naan police bi moom ma andi wala dañoo ñëw ba nee ñu seen auto police bi après ñoo. voilà parce que dafa am benn collaboration quand bu am ci diggante waa santé ak ak ak euh, force de sécurité yi. Mhm, mais nii accouchement à domicile yi moom. am na yenn ah ñun man bokk d'après rapport yu may def yu mensuel yi mhm. euh, rapport yi passé yëpp amuma accouchement à domicile mhm. amul accouchement à domicile donc peut-être am na ci yeneen secteur du ma ko weddi am na ci yeneen niveau am na accouchement à domicile foofu parce que nit ki tamit mun na ragale ñëw hôpital wala mu toog këram ba matu bi ñor mhm. le temps muy départ mu ñëw loolu yëpp day am moom mais nu mu doon bëree bëri bu njëkk ba moom peut-être am na yenn statistiques yoo xam ne peut-être bu dee niveau district ñoom mën nañ génnee ne accouchement à domicile yi bëri na d'après bu ñu defee seen rapport parce que dañuy récupérer rapport yépp mm-hmm. ñu xool Euh, poste bi yeeg post bi yeeg bi rapport yi ñu jot ndax accouchement à domicile nee na mais ñun rapport mensuel yi ñu def di leen envoyé moom. Mm-hmm. Euh, trois derniers mois yëpp amuñu accouchement à domicile mais accouchement yi wàññeeku na. Mm-hmm. wàññeeku na moom bu baax mm-hmm. wàññeeku na. peut-être hôpital yi mag yi peut-être ñoom dinañ am accouchement parce que parfois dañuy ragal jubal directement. foofu si hôpital yu mag waaw jubal directement hôpital mag mais hôpital euh, kii yi moom accouchement yi moom wàññeeku na. waaw parce que dangay waaw mais parce que période bi tam du période accouchement mais di ngi dem ci benn période boo xam ne moom accouchement yi dina bëri trop trop parce que ak confinement bi nga si bëri dañuy toog mm. parce que kii ñun du ñu xalaat sax ne kii raté rendez-vous parce que kooku su fekkente ne mu ngi nekk ak goroom wala mu ngi nekk ak yaayam mm. yaayam da koy force ne jógal dem sa rendez-vous hôpital wala moom parfois sax boo dee seen waa dañuy xaw a am xel ñaar bañ mu ñëw hôpital moom dina sàcc sax ñëw consulté wu mais ñu ñuy gën a xalaat mooy ñiy def planning ñooñu ñooy ragal ñu op dañu naan ax ah, garaaw xaama toog wala xaama dem pharmacie jënd pilule wala xaama toog toog bi ñuy toog nag ñooñ dañuy jël grossesse mm-hmm. toog jàpp seen njàmbur bis bu ñu ñëwee hôpital fekk grossesse bi avancé na alors que ñoom parewuñu woon pour grossesse boobu wala ñu ngi yor doom buy nàmpal donc après confinement bi on peut s'attendre à ce que ah accouchement yi bari ah oui yi moom dina bari moom loolu moom c'est sûr parce que Euh, day am période boo xam ne moom période boobu période accouchement la phase boobu bu fa tolloo moom accouchement yi day yéeg mais nii ak confinement bi nii moom ah consultation yi moom prénatal yaa ngi bëri de. Mhm. confinement moom ngi def ay effet moom. <laughs> kon aussi mën nañ xaar postnatal yi aussi noonu la. noonu la waaw waaw parce que parce que accouchement accouchement dina bëri. Mhm. postnatal postnatal dama comme ni ma la ko waxee sànq ay étape la parce que accouchement su CPN bi su bëree ñi nga CPN yëpp. Mhm. mën nañ bañ a accoucher ci sa structure mën nañ dem accoucher beneen structure parce que am na malade yoo xam ne mën nga leen CPN mais mënoo leen accoucher. bu dee comme par exemple ki nga xam ne mm, dañ ko opéré woon dañ ko césarienne woon. Mhm. moom accouchement accouchement amul dara sage-femme bi mën na ko mu am euh, grossesse grossesse bi amul benn difficulté amul dara sage-femme bi mën na ko visite ba am na fu muy toll bu tollee 36 semaines da koy bindal pap mu dem hôpital mu dem ko gynéco ko yeggal li ki des bu dee ko bi gis na ne mun day accoucher waat césarienne baax na bu dee gis na ne tamit euh, lu mu ciy def daal moog ko bi ñooy kii kooku xam nga doo ko accoucher mm. bu dee primi boo xam ne koo xam ne mosul am doom dafa âgé tam kooku da ngay préférer mu dem hôpital bu mag mm. wala koo xam ne tegle na ay cinq avortement saa yu jëlee grossesse mu def avortement grossesse précieuse la mm. toute grossesse sax d'ailleurs est précieuse moom mais day am ñoo xam ne da leen di surveiller comme si dangaa yoroon nen bañ mu daanu. Mhm. kon euh, maman mel ni euh, soxna ma ci am na ko euh, nekk si ligne bi mhm. ñu jël ko doogay continuer waxtaan bi allo. waa sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu ngi lay fay. noo tudd ak na fay wootee. waaw man la Omar maa ngi mari Omar tey li ñuy waxtaanee mooy jàngoroy coronavirus ba njeexital mën a am si jigéen rawatina ñi wann lor. ban ban gis-gis nga si am. waaw waaw loolu am ma ne Covid bi daal gis ngeen ne dafa yokk jafe-jafe. Mhm. ndax euh, dañuy ko euh, dañ Covid bi ñu gis ni mooy. Mhm. xiif ci réew mi ak ak jafe-jafe yu tara tara. Mhm. waaw dootu xam naa ne adduna bi yëpp waaye daal comme que euh, état bi moom ñoom ñoo ko war a ñoo ko fi nekkal askan bi gannaaw yàlla askan bi yaakaar ne leen waaye gis nañ ne daal ñu ngi xeexee affaire bi daal. ak tamit gisaguñ ci seen bopp. mais gisoo ni jigéen ñi tamit liñ ci loru bari na lool ndax euh, wàllu wolaar rek jigéen ñi ñoom gis nañ ni dañ siy fës Covid bi ak jigéen ñi niñ koy dundee. waaw euh, jigéen ñi moom dafa néew doole surtout hôpitaux yi hôpitaux yi sax laay wax moom nit ñi moom kuy waxal ak lay taalaam ñu bëree bëri ñi mun koy dem ndax. communication bi ñuy faral di def ci Covid bi tiital nañu ndax man dama ne woon pour man sax loo jëlee ko ndax booy xool ñun réewu Afrique yi laa ndax ñun yàlla mu ñu saan ndax booy xool réew mel mm. bi duggee quinze jours dix jours ay mille mille nit la fa rey. Mm. Mm. kon nag ñun fii suñu réew mi depuis trois mois quatre mois ba fi Covid bi duggee yàlla mu ñu suturaat ñu ci wàññi. ay benn ak ñaar. xam moo tax ma ne communication boo xam ne day tiital nit ñi loolu pour man jëlee ko ndax feebar bi tamit. ndax boo gisee ay mbir yu bëree bëri tamit naxatu na ci ay tappalee ndax boo ko man euh, musuma gis koo xamante ni ku ma xam koo xamante ne feebar bi dal na la donc feebar bi moom euh, doy na waar ndax am na ay mbir yu laaxatu si biir il faut tamit ñu wax ko waaw ndax euh, nit ñi nga xamante ne dañuy dee ñun ñëw si écran dong laa koy gis man awma benn preuve buy wane ne ñii dañoo dee. Hmm. ndax am na loo xam ne ndax lii mënul mënul continuer il faut tamit wax ñu ndax nit ñi dañoo war a dund ndax adduna vraiment nit ñi sonn nañu waaw ñi nga xamante ñu yor ay milliards ay millions moom lii moom bu continuer nii ba adduna si ko gis kon donc lépp loo xamante ni laxasu na ci mbir nekk ay dañ ko war a wax nit ñi te yàlla tax mm. mais xëy tamit toog ay conférence de presse di wax loo xamante ni teewlu kuñ koy wax dëgg rek bu doon bu doon faagaagal Sénégal yi depuis trois mois yi bu ñu fi duggee léegi waxatuñu ñu ko ay millions yi nit xew ne euh, seen bakkan wadd nekk ndax heure bi ndax tamit euh, euh, réew yi Europe yi nga xamante ni dugg na ko gis nañ ko lu fa def une semaine laa la wax ay 15 jours gis nañ fa lu fa rey kon nag gis na dugg na Sénégal dugg na Afrique ñu may faat ñu ngi koy wax mais man mos ku maa gis ku ma koo xam ne feebar bi dal na man am kon donc lu ñu ñàkk li ñu ñaawle mooy réew mi nit ña tar na li ñu wax ñu ne Covid bi moo tax hmm. mais nit ñi dañoo war a dund ndax Sénégalais yi moo leen moo fi teg gouvernement bi réew mi ñu ko ko bokk mais nit ñi nekk ci bànneex mi nekk ci jafe-jafe te fàttali yu am ci biir Covid bi waxuñu ko nit ñi ah loolu tamit man moom sa hôpital ma du ma fa dem képp ku ma xam ndax ndax il faut que nit ñi wax ñuy dëgg nga affaire lii bii mënul continuer bii ba kañ yaa ngay dégg mm-hmm. waaw jafe-jafe yi askan bi di dugg ci maanaam di dund ci Covid man loolu laay ñaaw loolu moo tax ma ne lii dafa war a dagg lii mënul continuer ndax lii nii bu naree continuer nii il faut nit bépp décision boo xam ne jëloon nañ ko dañ ko a dindi sànni bàyyi nit ñi kenn ku ne am seen liberté ñu mën a liggéey réew mi dox waaw ah, loolu daal laa si doon wax si gàttal jërëjëf. jërëjëf di ko jaajëfal moom Omar moomule euh, di respecté bu baax euh, contribution am kon mi ngi noonu euh, mën ngeen def 88 628 05 05 yéen ngeen ba bokk si waxtaan bi li ñuy waxtaanee mooy CPN maanaam jigéen bu nekkee en état ak bu wasine njeexatal bi nga xamante ni jàngoro coronavirus am na ko ndax jigéen ñi nga xamante ni bari na si ñoom ragal nañ dem utali lopito yi ngir xool seen wér-gu-yaram. ak euh, jigéen sa de façon générale euh, euh, Covid bi nim nim nim faagaagalee jigéen mën naa ko waxee noonu ndax ci lu bari soxna ma jigéen booy xool jigéen da ciy yëngu. Mm-hmm. jigéen ñi ngi ci marché yi jigéen ñi ngi ci lopito yi jigéen ñi ngi fépp di def seen i activité tey coronavirus ñëw mën naa ne stoppé lu bari si yëngu-yëngu yi nga xamante ni jigéen ñi ñi ngi ci. est-ce que coronavirus dammul laaf comme ni ñuy wax damul laafu jigéen ñi. Euh, si si si euh, sur le plan économique sur tous les plans euh, ci biir réew mi. Mhm. damm na ko moom damm na ko bu baax a baax a baax parce que amu comme ni góor yi am na góor yoo xam ne dañ doon taaba taaba di xëy. di door waar di taaba taaba pour yóbbu seen njaboot. noonu la amee ci jigéen yoo xam ne tam dañ doon taaba taaba comme jigéen yi nga xam dañuy yor gargote di jaay ndékki wala ñuy jaay añ mhm. dem na ba benn instant boo xam ne ñoom seen te ñu si bëri xam nañ ne nag banlieue bi nag jigéen ñi ñoo yor mhm. jigéen ñi ñoo yor ngay gis jigéen boo xam day taaba taaba même jigéen bi buy ñëw visite da ngay xam ne jigéen bi day taaba taaba lu mu daggee tikeem day taaba ta am jom ba dee day taaba mhm. taaba lu mu jëndee ordonnance am lu mu defee ay analyse am ñenn ngi sax sage-femme yu bëri duñ ma bàyyi ma fen sage femme bu ne sa crédit bu ne sa portable jëkkëru malaat nga koy woowee. Mm-hmm. soo ko waxee mun naan la waaw maa ngi sama xel ngi si nangam sàng am na si ñoo xam ne il faut nga woo leen di leen fàttali parce que ñoom foog nañ ne analyse soo defee analyse si ëmb bee rek ah, bi jaratul ngay def analyse mais ëmb bee amoo ci woon anémie ëmb bi mën nga am anémie mm-hmm. ëmb bee amoo ci woon euh, suukar ëmb bii mën nga ci am suukar ak yeneen ak yeneen yu sew sewaan mm-hmm. ñaari analise donc ngay def soo ëmbaatee nga indi sa carnet du changer mooy bi ñuy xool sa sanguin sa groupe sanguin ban groupe nga bokk ak ban registre la ak bi ñuy xool ndax amoo drépano yooyu moom boo ko xasee ba def jeex na. Mm-hmm. mais yeneen yëpp da ko war a defaat. donc jigéen ñooñu tam ay jàmbaar lañ euh, auditeur bi dugg léegi nii li mu wax moom loolu xelam la du ma ko du ma ko ñaawlu rafetlu naa ko mais genre yu mel nii tey kii bu jabaram ëmboon du dem hôpital. Mm-hmm. bu jabaram feebaroon du dem hôpital. Mm-hmm. donc am na ñoo xam ne ba tey seen mentalité gëm nañ ne feebar bi amul. parce que gisul ku ko am mais ñun ñi ciy liggéey ñun ñi gis ñi ko am. ñun gëm nañ ne am na te man jeune pense pas que ne ministre de la santé saa yi ñu xëy di jël xaas bu dul jeex di ko def ci Covid bi loolu xam naa ne du ay caaxaan. Mhm. donc am na olof nag nee na loo gëmul dalay gaañ. fi mu mhm. toll nii sénégalais yi ni ñu tiitee woon tiiteetuñ ko léegi. Mhm. plage yaa ngi fees den xale yu góor nawetaan yi ñu ngi fubal. ñu ngi def lu leen neex marché yi kenn takkatul masque. il suffit ñu ne la oto police baa ngi ne gaara ngay dem di lijjanti masque mais nee naa ne man. ku ne war nga lu ngay def moom sa àqulaay taalaa la yow la engagé mais ku ne na nga sóor ne kër gu ne am na troisième âge mhm. paa bi am plus de soixante-dix ans toog ci demul fenn demul sax jumaa tànkam baaxul mu ngi ci kër gi toog paa boobu ku ko jox corona mhm. sëtam moo ko andi donc am na yenn indiscipline yoo xam xale yeeg indi mag ñi dee mhm. c'est am na yenn indiscipline yoo xam ne da leen di topp ba ci biir kër yi donc man nee naa waajur bu ne sàmm nga te am na loo xam ne yenn mentalité yoo xam ne mënuñu ko demee mënuñu ko demee takkal sa masque lañ law def sa mesure barrière yàlla mën nañu sàmm mu ki cas communautaire yaa ngi ni fu nekk boo xëyee banlieue bi ku nekk di nga di nga ñam sa benn tox cas communautaire di nga ñam mm-hmm. da nga dem ba à la longue ñam ki leen ni wàll kenn du xam kan la donc mënuñu desi mënuñu desale ne cas communautaire bi kii la mu comme mu ngi law di dem ku nekk na jël ay matuwaayam fagaru moo gën faju mm-hmm. moor yaa ngi gën a bëri mm-hmm. instant yi ñu ngi dem ci phase palu te ku xane xam na ne si ñu palu ak si ñu xaw na numéro donc kenn mun na am Covid foog ne pali la toog ci këram. Mm. wàll ko waa këram yëpp. kenn ki mun na am pali itam toog ci këram te ñëpp xam nañ ne pali nu muy reyee moom pali moom amul caaxaan. Mm. reyum pali moom amul bànqaas. te xale yi la gën te pali dafa yab jigéenu wérul. ankay da leen yab looloo tax sànke yi dañ koy maye. SP bi ñetti doomi lay aat sibur dañ koy maye même su fekkente nee nga mënuma ko naan nangam sangam sage-femme bi dina xool nu mu la baabee ba nga naan ko parce que loolu mais bu dee naan nga sa SP. boo demee sa kër sage-femme mënu xam ndax yaa ngi tëdd ci sànke wala tëddoo si sànke mën nga def sa sànke tam dem làng ci ëtt ba làng waxtaan yooyu matt la jël seen wàccuwaay ba mu baax hmm. soo demee da ngay siburu sa doom siburu te palu ak grossesse loolu risque la donc daal war nañ defaraat toogaay bu baax a baax a baax a baax ku mm. nekk nga xool fan ngay fan ngay suti yow mm. ku nekk jël ay mesure am su ko defee yàlla mën nañu suturaal mm-hmm. mm. euh, ci ci ci wàllu garab ma jigéen mm-hmm. euh, ay jamono tëjoon na frontières yi mm-hmm. te wax nga ko sànq jigéen euh, am na fu muy toll day naan ay garab tout le temps bu wasinee it day naan ay garab est-ce que demoo leen ba benn rupture am ci wàllum garab yi non wàllum garab nag noonoo non rupture parce que bu fekkente ne SPE bi nga xam ne la ñuy may maladie district bi moom jox nañu lu bari loo xam ne dañ koy may. Mm. bu dee fer bi moom façon fer bu nekk am na femme enceinte bu ne mënumaa naan fer fer am na poudre. Mm-hmm. fer am na boo xam ne comme chocolat la. am na sirop bu am fraise goût mm-hmm. framboise mm-hmm. goût fer yu ne am na fer am na sax boo xam ne comprimé bi boo ko defee ci diggu kaasu ndox day fuur comme vinto nga naan jàpp sa njàpp donc kon ma jigéen moo mel ni am na ku nekk ci lii bi ñu jël ko allo mbokk mi allo oui. waaw soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. noo tudd fay wootee. Anta Niang Kër Massar. soxna Anta euh, sa contribution ci émission bi. Ah, ay mu mel ni soxna Anta daw na kon ñu koy euh, xaarandiwaat mhm. euh, ma jigéen. Mhm. Mhm. waa lu ma waxoon noonu maam say. par rapport ak feer yi feer moom am na fi am pagaay ku bëggul naan feer da neex. am na ñoo xam ne naanu garab ci boppam lañ mënul chaque jour bu ñu xëyee ndékki naan seen garab munuñu ko am na ñoo xam ne il faut nga leen bàyyi xel comme par exemple ñi nga xam ne dañoo ëmb bees ñu suñu ëmb ñooñu moom mën nga leen a seen borom kër yi sax mën nañ contribuer ci kii bi parce que am na ñoo ñu ëmbee di ñëw consultation dañuy mm-hmm. am na ñoo xam dañuy ànd ak bu jëkk ba ñu baal ma ci kii bi pël yi rek pël yi rek ñoo daan ñëw di ànd ak seen soxna yi boo leen ko waxee exemple ñu naan la pël yi seen jabar yi dégguñu olof mais pël yi seen jabar dégg nañ olof mais c'est que peut-être suñ demee kër ga bu bu naree reporter li sage-femme bi wax yépp déjà communication bi du jàll. du jàll moo tax gis nga pël ba léegi nii bu ñuy ñëw seen jabar bu ñëwee consultation. dañuy fekk jëkkër ji dafa liggéey. bu duggee consultation portable am lay njëkk a sonné. Mm-hmm. ne la passe ne ko passe ma sage-femme bi soo ko consulté ba pare. mu ne la lan ak lan ak lan lan la nga wax ko lan ak lan ak lan ak lan la mm-hmm. wala soo ko soxlaa bu waree def écho wala dara soo koy woo muy ñëw muy ñëw analyse soo ko nee analyse danaan la amul problème mais am na si ñoo xam ne il faut nga insister même bu dee écho bi i faut nga insister insister parce que dañuy foog ne écho bi pour xam sexe bi la alors que sage-femme bi xam sexe bi sa l'importe peu Mm. amalu ko benn njëriñ góor la wala jigéen da ko koy tuddee tuddee woo ko moom loolu yoon a nekk donc am na yenn paramètres yu ne si biir moom loolu lay seet mm. pour wér xale bi mm. mais duñ ko comprendre noonu mais loolu yëpp communication la am na nooy waxee nit ki ba dina nangu am na nooy waxee nit ki tamit dina ko accepté donc parce que nit ki nga xam ne deful analyse nga koy seet di ko seet ba mu dugg ci weeram neexul mu dem beneen hôpital wala nga ne ko sooy wasin dama hôpital bu mag mu dem beneen hôpital bu mag ñu ne ko defoo analyse kon day mel ni kon sage-femme bi ni mu liggéey dara baax alors que sage-femme bi wax na bay bëgg a dee. te li ci li ci mm-hmm. doy waar soxna ma jigéen euh, jigéen ñi buñ dawee seen i analyse buñ dawee seen i ñu war a accoucher dem euh, sage-femme bi leen war a euh, rewle xool seen carnet gis ni ñii kat. kii kat respecté wul ay rendez-vous am mm-hmm. deful échographie am deful ay mm-hmm. analyse am du ko nangoo jël. waa léegi loolu dëgg la maam say parce que am na fu malaat bi toll foo xam ne yow doo ko mën a dàq. bu fekkee ne danga nga koo dàq su demee rek mën na accoucher ci yoon bi doo ko mën a dàq. donc mm. da ngay obligé jël soo ko jëlee. mais du nekk risque. risque la ba la parce que malade bi nga jël deful bilan deful dara mais bopp xale baa ngi nii noo koy def. Mm-hmm. xam nga kooku mënoo ànd ak moom yor boîte di wër hôpital yi. Mm-hmm. donc da ngay obligé jël ko. sutura yàlla sunu borom bi rek a fi nekk. Mm-hmm. soo ko jëlee après da ngay obligé prélever ko soo ko prélever bu dee structure bi am na labo baax na mais bu dee structure bi déjà post yu bari amul labo. bu dee da nga ko prélever am na labo à côté da jël prélèvement bi yóbbu pour mën a xam groupage bi en cas de pépin nangam sangam mais mbirum accouchement su mbiru suñu borom la. Hmm. lu ne xaj na ci lu ne. sage-femme bu def accouchement ba femme bi wàcc ak jàmm ak salaam dem ci këram ak jàmm ak salaam du njàmbaarte sage-femme bi du njàmbaarte malaat bi suñu borom dong moo fa intervenir loxoom parce que malade bi mën na saigner à tout moment à tout moment mën na saigner moo tax def sa bilan ñu xool sa groupe sanguin dara ñu xool lépp lan la ba daf ciy baax. mais malaat bi nga xam ne deful analise deful dara ñëw nga xool ko gis na deful analise deful dara avancé wul kooku si sa am nga si sa sañ-sañ ne ko demal hôpital bu mag mais li nga naan ko demal hôpital bu mag ba ba tey da koy bindal kayit. Mm. buy wane ni malaat bi jaar na si yow. Mm. parce que moom bu demee danaan fee laa dem dañ maa dàq. alors que yow seet nga ko bindal ko yow bind kayit tapp ko ci carnet bi wala nga bind ci carnet bi na da dem milieu hospitalier bu demee foofu. foofu boo demee dinañ la defal bilan defal la yëpp mais bilan bi malheureusement du la topp parce que ñoom amuñu jot di jël bilan bi di la ko reporté waata sa carnet de mm. sa dossier lañ koy def te li ngay fay foofu mooy gën ni mm. ngay fay foofu mooy gën a cher donc balaa sàccaa nga def sa bilan soo defee sa bilan def sa écho def sa yëpp yow nga xam ne wàccoo nga ak sa grossesse mais su dee loolu yëpp defoo ko bu dee denc nga sa xaalis nga génne sa xaalis nga def sa santé parce que man nee naa grossesse bi du góor kese grossesse bi góor la ak jigéen donc man su fekkee ne sama jëkkër amul les moyens wala joxuma man bu ma amee sama benn 10 000 wala sama benn lenn dinaa ko jël ma def ko ci sama yaram ndax sama doom la. Hmm. parce que li muy dajale fee pour su ma wasinee ma mën a di baateree ka di def sañsee ka di def loolu balaa loolu am na lu ko jiitu. am lu jiitu balaa ngay tal ay xew ak yooyu di nga tal sa santé ak sa wér gu ba pare donc man ñetti pepp bi ngay jël. di ko def ci sa santé loolu amul man parfois dama leen di tooñ sax mu ne sama jëkkër joxum affaire yooyu may la loo denc mu reetaan ma ne ko loo denc mu réyee ma ne ko génneel natt bi teggi nga natt bi mu réyee na ma teggi ma natt bi ma ne ko génneel rek soo dencee dara génneel nga def sa analyse su la remboursé baax na bu la remboursé wul baax na. Mhm. waaw mu mel ni euh, ma jigéen mhm. euh, mbir mi du rek bu jigéen ji war nee war nee lor waaye dafa dem ba bu accoucher. Mhm. suivi bi nga xamante ni war na am moom ak. ak ak doomam surtout mm-hmm. euh, taxawaay bi nga xamante ni ñu nekk kër euh, docteur war nañ ko taxaw moom jigéen ji ci boppam aar bi nga xamante ni war na ko aar dem souvent ci gynéco am topp ay rendez am foofu ah, di euh, saytu tamit yaramam xam ba après accouchement du ñàkk mm-hmm. jigéen ay mm-hmm. ay ay yoo xamante ni war na war na ko suivre waaw maam sëy su accouché ba pare déjà balaa muy génn hôpital bi dañ koy seet postnat bu njëkk bi ci biir hôpital bi la koy defee dañ lay seet seet sa doom seet bi tam dinañ la peese jëlal la tension euh, xool yëpp xool xool butitu njurukaay bi ndax mu ngi dellu place parce que hmm. utérus bi am na foo xam ne dafa war a nekk. Hmm. suñu xoolee gis ne utérus bi ni mu war a rétracté wee baaxul donc am na lu nekk ci suuf. Hmm. xool ndax amul saignement amul dara suñ la ñawee tamit dañuy xool ñaw beeg yëpp defal la euh, examen bi noonu balaa ngay génn ñu seet sa doom xool température xale beeg yëpp. xool ko parce que sage-femme boo juddoo si tàng tàng bi day xool da xale bi amul benn malformation su amee benn malformation boo xam ne sur le champ da ko war a référer da koy référer en urgence su fekkente ne nag euh, gisugul gisul dara parce que mm. mën na ko seet ci tàng tàng bi du gis dara bu ko seetee ba pare nga xam ne yëpp normal na mu wax ko nan lay jëlee ay garabam day ñibbi su ñibbee boobu mooy post postnat bu njëkk bi bi nga xam ne def na ko ci hôpital balaa muy génn parce que femme bi wasi ne euh, poste X parce que côté boobu moo ko jege wala dara mën na tamit dem poste Y pour mm. yeggalee fa visitam mi parce que en général su dee malaat bi dafa ñëw accoucher op benn hôpital bu nekk côté yi ñooñu dañ naan la dellul fi nga doon visito nga déggali sa visite postnatale parce que ñoom defal nañ la bu njëkk bi visite wasin bi dellul fi ngay visito déjà ñoom loolu dañ koy dañ lay delloo ci sage-femme pour mu yeggale ay postnatalam mais mm-hmm. ñoom tamit dina leen wàññil malade bi di jógee distance parce que lu ci bëri malade yi jógee distance di ñëw ay hors zone la ñuy doon mm-hmm. comme ñun suñu golf bi ne malade yi ñëw Nabi Choucair génn wàll malade yi ñëw Nabi Choucair di accoucher ay hors zone lañ te pourtant dañ leen jël ñenn ñi dañuy dem Philippe Senghor dañ leen di jël parce que du seen zone bokkuñu sax district yi donc buñ ko seetee seet bu njëkk bi ci hôpital ba pare dañ naan ko dellu ci hôpital bi nga doon visitoo moom bu tuddee ba si ëllëg sa bu tombeewul ak week-end day ñëw hôpital ñu seet ko boobu mooy J15 bi J9 J15 tranche boobu dañ koy seet xool yaay ji xool loge yi maanaam meret bi ndax amul xet xool fil yi ndax lâchewul parce que parfois mu njëkk ba dañ lay ñaw ba pare ñu naan la toogal ci ndox bu tàng defal ay mm. nepp nepp defal mm. loolu affaire bi mm. day lâché te su lâché du ba ba pare femmes yi nga xam ne dañuy xeesal seen épisio bi pour mu jàpp day indi ay jafe-jafe parce que der bi dafay nooy. day nooy ñooñ tam mën na lâché. dañuy xool fii bi xool yëpp xool température bi xool tension bi xool yëpp parce que tension mën na la topp ci ëmb mën na la bañ a topp ci ëmb mu feeñ ci wasin bi jour wasin bi stress beeg yooyu nëpp tension mën na feeñ foofu continuer nag ak yow bañ laa bàyyi. Hmm. de même que mën na feeñ ci grossesse continuer ak yow bañ laa bàyyi donc loolu foog mu am suivi. Hmm. su fekkee ne la tension bi dalaa bàyyi baax na bu dee bàyyiwul la dafa war a am suivi. te tension boobu am na xeetu planning yoo xam ne doo ko mën def. donc bu ñu defee postnatal bi dañuy seet bébé bi bébé bi tam dañ koy seet de la tête aux pieds xool bët natt ko parce que bu mu juddoo natt nañ ko dañuy natt bopp bi am na bopp bi natt bi fu mu toll foo xam ne am na benn feebar boo xam ne loolu la parce que mënuñu ko natt tey mu toll nii bu subaa ñu natt ko mu gën a yaatu kon am na lu liquide bu ne ci biir bu yokk bopp bi mm-hmm. bu ñu paree natt dënn bi natt loxo yi natt taay bi yooyu yëpp pour xool bu ñëwaatee tam rendez-vous bi tam loolu dañ koy def jël température bi laaj yaay ji ndax saw na ndax dem na dus yooyu yëpp tam dañ koy dañ koy laaj examiner ko xool parce que bu fekkente ne sage-femme bi gisul benn formation fee bu ñëwee fii mën nañ gisaat beneen mal formation xool kanam bi ba xam ndax kanamu jigéen bi ba xam ndax yëpp normal na bu dee góor bi ñu xool ndax fi muy sawee ndax jub na ndax mën na aju ci kaw wala mu nekk ci suuf yooyu yëpp ay malformation lay doon suñ ko gisee dañ koy teel bindal këyit mu ne hôpital bu mag su fekkee ne amul dara tam ñu bàyyi ak jumbax bi surtout jumbax bi mhm. dinañ ci def ay karité nañu def ay léegi sax dañ leen koy wax ay xandeer ay yooyu buñ ko ci def parce que buñ ko ci defee day indi infection mhm. karité dañuy foog ne bu jumbax bi waddee buñ sangee xale bi ndox mi day dugg si bi alors que non loolu yëpp dañ koy wax su ko defee mu bañ ko def yaa ji mhm. su ko defee yaa ji bañ a bañ def loolu hmm? Mm-hmm. léegi mu des nataal 3 bi 3 bi mooy J42 J42 mooy su femme bi amee weer ak fukki fan ñaar weer ak fukki fan ak ñaar boobu ci lañ koy seet moom tam ñu xool boobaa dina fekk kii bi wér ñaw bi dina wér fekk yëpp delluwaat place am yëpp normal ci la ñuy waxtaanee ak moom ci affaire planning bi su dee d'accord dañ koy defal ci saa si bu dee d'accord tam ñu jëm ko waxtaan ak moom parce que temps ba muy toog di nàmpal mën na bañ a gis règle mu foog ne loolu lu normal am na jigéen ñoo xam ne nàmpal bi xeetu planning la ci moom ci kaw joxoo ko ndox joxoo ko dara ween kese nga koy jox boobaa loolu xeetu planning la mais bis boo indisposé rek bokkatoo ci. Euh, mu mel ni kon euh, jigéen soxna ma jigéen ak district yi ak poste de santé dañoo war a lëkkaloo ca ba ngay ëmb ba ni ngay wasinee euh, ba dem ba am ay weer ci kanam wala sax ay at ay at ci kanam kon jigéen ñi jamono ji ak lu mu mënti doon. waruñu daw poste de santé yi dañu war a dem di leen fréquenter constamment di xool seen bopp ñu nekk en état wala ñu wasin mm-hmm. waaw loolu mooy yoon sax loolu mm-hmm. mooy yoon maam say mooy yoon mooy yoon mm-hmm. ba pare en plus femme bi tamit femme bi nga xam ne mu ngi nekk ci poste natal bi dafa war a am tam saytu ci doomam bu doom ji nàmpulee da ko war a yóbbu hôpital parce que am na ñoo xam bu wasin bees yoo xam seen ween du gaaw a bënn xale bu toog ñaari fan nàmpul ñetti fan nàmpul xam nga danger la doom bi bu nàmpul dafa war a ñëw hôpital xale bu sawulee wala demul duus dafa war a ñëw hôpital mhm. biir bi dafa gonflé wala fi cordon bi nekk kepp cordon bi fi mu nekk di nàcc dafa war a dem hôpital yooyu yëpp signe de danger mu am fièvre moom moo gën a nekk indication urgence taw hôpital nu mu gën a gaawee. d'accord kon soxna ma jigéen mu mel ni waxtu bi moo ñu tànc yaakaar naa li ñu war a wax yëpp xajul xajul ci une de temps kon euh, du ñu def la bàyyi la du dul nga rappeler euh, jigéen ñi li nga xamante ni moo di mesure barrières yi ngir ñu mën a aar seen bopp. Mhm. waaye it aar ji euh, nga xamante ni ñoom lañ dëkkal si jàngoro coronavirus. waa maam Sey nañuy raxas loxo yi. nañu raxas loxo yi di laal gel. Mhm. nañ takk suñu masque bu ñuy sëqat nañ ko def ci conc bi. waaw xale yi nañ leen téye ci kër parce que takk masque bi surtout. Mhm. te ñuy changer masque yi. voilà te ñuy changer masque yi boo amee sa ñaari masque tissu wala ñett boo solee bii boo après nga def sa ndox bu tàng fóot ba mu set paase. mën na la suturaal mun na la jàppale. Mhm. jàppale sa njaboot. ku yëg dara si sa yaram nga dem hôpital. ku yëg dara ci sa yaram nga dem hôpital parce que loolu da ngay aar sa bopp ba pare aaraale sa njaboot. fagaru moo gën faju mi ngoog fagaru moo gën faju di ko jaajëfal moom soxna ma jigéen Ndiaye di maîtresse euh, sage femme ca centre Elisabeth Diouf bu euh, Golf li ñu doon waxtaanee tey moo di njeexital bi jàngoro coronavirus am si visite yi nga xamante ne jigéen ji war na lool war na ko def waaye it ca bu wasinee kon déglu ngeen waxtaan bi nga xamante ni seq nañ ko fi ak soxna ma jigéen Ndiaye si émission bi nga xamante ni rajo Afia FM mi ngi ci lëkkaloo ak euh, URAC bu lëkkaloo ak rajo ak ambassade bu URAC di kuréel gi nga xamante ni moom rajo communautaire yi nekk fii ci Sénégal ci benn euh, projet bu ñu tuddee PISCA boo xamante ni day euh, euh, day maanaam fësal ak ak yelleefu jigéen ci lépp lu mënti doon kon mbokk yi ñuy leen di jëfal ci safoo beek faale bi di leen jox rendez-vous beneen émission. xeex bedd bi ak kàddu yu ñaaw yi ñuy teg ci ndoddu jigéenu senegaal te teguwul ci benn diine waral kuréelu ndaw yu góor yeeg jigéen ñi am taxawaay bu wér ngir jële ko fi lii war a tax askan wi yëpp boole seen doole ak seen gis-gis ngir sàmm ak ak yelleefu jigéen fépp fu mu mën a ne ci senegaal xibaar bi ambassade France lëkkaloo ci ak URAT ci ndimbalu projet bu PISCA moo leen koy may.